yi parce que aujourd'hui commission mixte mi ngi def des enquêtes suñu paree ba génne seen rapport man ministre urbanisme man maa am responsabilité refaire les plans d'urbanisme refaire les lotissements correction travail de correction boobu on va le faire avec beaucoup d'humanité mais dañ koy teg toujours ci dëgg. mais fan ngeen toll ci audit yi Mbourkat yëngal ngeen mais pare ñu ngi waaj dugg ci phase de correction bi. pare ñu ngi ci waaj instant bi rapport yu bëri finalisé nañ ko rapport pare rek man lañ koy jébbal ma ñu continuer. def correction yi ci war. mais correction yi nan ngeen koy defee. non loolu moom dañ ko gis. non pour pour pour mbuurkat. non dañuy def correction yi ñu war a def rek ki nga xam ne jot jot nga loo xam ne war nga ko jot ci ni nga ko war a jotee mais ñu continuer parce que ñun li ñuy def pour sénégalais mais bu dee danga nga ñëw comme li nga décrire <laughs> ñu ne la nag saa waay. dañ koy nangu. ah mais bien sûr il n'en est même pas question y a même pas hésité am na yoo xam ne kenn du ko fi accepter c'est pas possible.